mbokk yi Leewtoo TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar waa ni ngeen ko xamee nag 100 pour cent làmb fii ma nekk nag ci kër laa nekk tey parce que li tax mooy coronavirus bi moo fi nekk lëjal ñu lëcc ñu ñaan yàlla ñu ko fi indi yàlla na ko fi jëlee yóbbu ko barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba kenn bañati koo dégg wala sax nga koy gis tey nag dafa am fu ma dugg kër ab Ablaye jóob xaas boroom ñaan yi xanaa moom itam dinañ ko dégg suñu ay loxo wax ko mu ñaan te am nañ yàqin ne bu ñaanee yàlla mën na fee jëlee lii ak ñu mel ni ki ñoom parce que bari nañ ci àddina bi macha allah te yàlla ko wax ñaan leen ma ma may leen ngeen sant ma ma dolli leen kon nag damay dugg parce que fii ma won ginnaaw ni saal la maanaam fu ay nit di jotaay la am na ku ma fiy seet. waaw gisoon ngeen léegi sama ginnaaw kon dugg si na waaw ay góor yàlla nag laa jàkkaarloo du mën a kii fa mu nuyu ko. laaj ko tur parce que ci kër Cheikh bi laa ko fekk kilifa gi maa ngi lay ziar. ñu ngi delloo ziar. maa am nga jàmm. waaw sam naa baax tur bi nan la. man laa tudd. Pape Sène. waaw Pape Sène laa tudd. maanaam mbokku Cheikh Abdoulaye Diop xaas waaw rakkam la lu ngeen bokk. ñoo bokk ndey ak baay ba. ah ah macha allah kon yow ñu ngi lay ziar bu baax. jaajëf ñu ngi i ziar bu baax. ñu sàkku ñaan bu baax. amiin amiin incha allah. maa am nga jàmm daal waaw sant naa bu baax na yàlla na ko yàlla yàggal. kilifa ak yow tur bi. waaw man la As Ndaw. As Ndaw borom du ko maan. <laughs> benn bi may dégg wala. waaw moom la. wala numéro 2 <laughs> bi la. non bi numéro 2 bi la. waaw mais yaa ngi si jàmm. <laughs> ñu bu baax. naka dëkk bi. waaw dëkk bi moytu rek de. moytu waaw de waaw fi mu toll rek. am na solo kon ni moytu waaw li gars yi wax daal. waaw ñu di ko def ñu docteur yi wax. waaw kay am na ci solo wax nga dëgg waaw. ku bëgg a mucc da ngay moytu waaw kooku toog moom général Malick la moom xam naa bu ñu ko fekkee fi du jaaxal kenn mais balaa may dem ci moom am na kenn ku ma fekk mu toogal muy armée borom benn baraag armée sëñ Babacar armée ci loo ne ñu ngi sant ñu ngi ziar mbaa am nga jàmm ñu am jàmm bu baax a baax naka réew mi corona beeg coow li waaw réew maa ngi nii rek di hmm. rek waaw di ñaan yàlla yàlla def si jàmm hmm. waaw corona bi ngi koy wax mbas mi mbas mi waaw yàlla na ko fi yàlla teggi comme hmm. jàmm la bu yàlla sant mission yàlla na ko yàlla teggi ci nu mu gën a gaawee. waaw tiital na àdduna de. waaw tiital na àdduna mais yàlla buur bu baax la. ndeysaan wér na armée adversaire bu la. <laughs> waaw loolu dafa leer. <laughs> loolu la liggéey. <laughs> Ah. léegi nag damay continuer ba tey rek. kii moom ci moom laay ñëw parce que tey moom laa fas yéene seqal ay wax. Mm-hmm. muy général Malika. waaw waaw moom ndeysaan. ah moom xam ngeen ko bu baax a baax ci làmb ji. ndeysaan. Euh, champion. Babacar tey bett nga ñu de. waaw tey xam nga man mu corona bi taxul des fois mu xaw a génn tuuti rek. xoolaat dëkk bi. Mhm, tey nag ma duggoon côté benn baraag ma ne xaaral ma jaar ko Cheikh Abdoulaye Diop xaas bi mu ñëwee fekk leen fi ngeen toog. waaw ak armée ak rakku Cheikh bi. ak as ndaw Mbale maa ngi leen di nuyu maa ngi leen nuyuwaat mbër. Babacar ñu ngi lay siyaar mhm. ginnaaw bañ sante yàlla jëli ci yonent bi di gërëm sumay ñaari waajur di nuyu suma sëriñ Cheikh Abdoulaye Diop borom xaar ci ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi mu yàgg fi loolu te mhm. di nuyu waa Malika yëmbal benn baraag waa Boun waa Kër Massar mhm. waa àll ba waa montagne waa mbëba sax di nuyu suma soppe yi di nuyu suma am yu nekk ci diaspora bi di nuyu àdduna yëpp ah di nuyu àdduna bi yëpp waaw waaw mais li ma gis nga teg sa kanam ni lan la waaw lu teg sa ñun de lii la ñuy autorisé. lii lii moom ah lii daal alcosène la. alcosel pour raxas loxo yi. waaw pour waaw loxo raxas loxo yi ndax ñun foo ñu fekk. kon ni nga koy defee yow. noonu la demee comme dag ñoo fekk ci salle bi ñuy toog di waxtaan. mënu fee ñàkk dugg see da ciy laal. da dañuy mayante en distance. Mhm. waxtaane ko ndax réew mee ni toll daal. addinaa ni toll addinaa ko laaj. waaw loolu la demee. am na solo ndax ku xam na ni fi mu toll nii moom àdduna yëngu na. yëngu na macha allah. te nag waaw. Mhm. liñ naan daal lu mënta ñàkk faa mu am. mais ndogal boo gis ci àdduna si suñu borom lay jógee. di dolli rek di ñaanaat yàlla mi nga xamante xamante moo fi wàccee mbas mi di ko ñaan yal na ko teggil jaam ñi ndax fi mu toll nii boo xool fi mu toll nii xelu kenn dalul ndax suñuy activité suñuy yitte suñuy yëfi bopp yi nga xamante ne ci lañuy ñuy dox di ci xëy di ci gont essant yi mënatuñoo def dara kon loolu mën nañ ni yëngal na àdduna di ñaan rek yàlla na fi jógee yàlla na fi jógee daal porteur de voix parce que mbër nga nekk ci làmb yi ñu xam la macha allah yaa ngi dégg tey sénégalais yi am na loo nga xam ne médecins yi ñu ngi ñu koy digal ci ñu moytu maanaam dajaloo bi moytu jaxasoo bu bari bi tey raxasoog saabu ak alkosel yeeg yooyu loolu boo amoon message boo ci wax sénégalais yi lan lay doon yow en tant que général Malick waaw message bi ñuy joxe rek suñ bopp lañ koy njëkkee waaw message bi ñuy joxe suñ bopp lañ ko ciy njëkkee mm-hmm. ndax ku ne xam na ni fi mi toll ku ci mm-hmm. nekk yaa war a mën a dimbali sa bopp mm-hmm. man jàppoon naa ne sax jaarul ba président joxe ordre jarootul jeunes yi di génn ci mbedd mi jaru ko woon pour man ndax ku ci nekk rek boo ko defee ni sa bopp rek amaana xëy na lu ci bëri mën nañ cee mucc ndax jàngoro la jàngoro boo xamante ne corona day wàlle te lu mhm. existe la lu am la ndax ku ne gis na ni muy def ci àdduna bi mhm. ku ne xam na ne ñun suñu Sénégal bi dafa ndaw rëyuñu mhm. te tamit suñu doole demeewul noonu kon li ñuy war a mën a tax mucc mooy ñu fagaru maytu yenn jotaay yi moytu daje ci yenn mbooloo yi moytu di di di jëfandikoo yenn affaires yi ndax tamit affaire yi set lay laaj. set lay laaj ndax ku ne xam na ni instant bii nii bëri na yenn saafante yoo xamante ne ñun dañ koy dund loolu suñu culture la. suñu culture mais instant yi faw ñu wàññi ko ndax situation oblige. Mhm. ndax bu ñu demee ba ne nañ wàññi jotaay ci jàkka yeeg daara yi. Mhm. kon ku ci nekk war nga koo mën a bàyyi xel. Mhm. toog sa kër boo toogee sa kër tamit nga mën sensibiliser waa kër gi mm-hmm. balaa mbedd mi sax nga sensibiliser waa kër gi mm-hmm. wane na ni kat tey jii nit ku ci nekk da ngaa war a fagaru ndax fagaru moo gën faju moo gën faju solo général mais mbër nga te ku ne xam ne ne actuellement nii yéen pause ngeen comme ni ko ñëpp defee mm-hmm. mais ci côté entraînement yi tey actuellement noo ko gérer nii waaw lu mënta ñàkk rek benn séance laay entraîné mm. des fois ma dem ngoon gi din yo wala des fois ma bàyyi bëccëg gi ba mu xaw a tànk tuuti ñu dem din ndax bëgguñu sax di entraînement di mobiliser wu di ànd ci benn mbooloo beeg. booy dem yow rek ay ànd wala mooy dem man kese ma doon ñaar. Mhm. ànd ak kenn daal waaw ànd ak kenn mais du tee tamit bu ñuy entraînement man fu may yem sama poche sax dama yor sama alcosène. ok bu ñuy nuyoo ça va ça bien la ñuy def amul joxe loxo amul jàppal ma jàpp saal moom tëj nañ ko. dematoo saal dematuñ saal. kenn entraîné daal ngay dem din daal la ñuy dem lu mënta ñàkk. Mhm. waaw pour maintenir sa forme. Mhm. nit ñi ñoo war a xoolaat seen doxalin ndax li daa ni yàlla dafa ñëw am la muy wan nit ñi noo ko jàpp nañ ne loolu nag ndax àdduna moom saa su ne a ngi ñuy wan boppam mhm. mais liñ naan ñii gëm a ngi gëm mais ñi gëmul ñu ñu ngi gëmadi ba tey ñun jàpp nañ ni ñun nga xamante ne ay jullit lañ mhm. gëm nañ yàlla xam nañu yàlla lu am la même na ci ñoo xamante ne gëmuñ ne sax yàlla am na mhm. te yàlla saa bu demee jamono bañ fàtte ko ba xel yu bari génn ci ñoom dina ñëwaat wanaat leen boppam pour fàttali leen ni kat mu ngi yàlla waaw mu ngi fi mm. man loolu laa jàpp ndax lii nii ku ci nekk war nga cee mën a jële jàngat mm-hmm. ndax tubaab yi ñoom jàppoon nañ ni monde bi àdduna ñoom ñoo ko moom ñoo ko téye seen loxo te fi réew mi toll fi àdduna bi toll ñoom essant yi jaaxle nañ jaaxle nañ xamatuñ fu ñu jëm démb rek ñu may envoyé ay images Italie fi mu toll nii ñoom seen esaati saati lañ mujjee occupé ak seen jardin yi. Mhm. di fa dajale koor yi ak yenn malade yi nga xamante ne mënuñoo xaj ci hôpital yi ci mbedd mi lañ leen di mm, tëral. ak seen lal image yoo xam ne man dañ ma ko envoyé su may nit yoo xam ne ñu ngi Europe. Mm-hmm. vraiment affaire yi métti na métti na trop. kon daal yàlla na ko yàlla jeexal. yàlla na ko yàlla ay waxu kilifa ay waxu nit. ma xam ne kii kat nit na ba sama combat bi passé. Mm-hmm. ba mu ñëwee voyage bi da maa ngi waroon bëri le 21 mars. waroon def open press ay le 18 mars. dañ doon programme mu naan day jéem a fexe def le tour pour ñëw suma secteur. pour ñëw secteur ak xoolal kilifa googu ni mu toll. waaw ah, bien sûr. yaa may dégg. Ah, ah. far yàlla dogal li koy dal dal ko. yàlla jëlee ko jot ñoo gisante yàlla jëlee ko fi mu doon lu metti. Mm-hmm. wallaahi azim mu doon lu metti man maa ngi koy ñaanal fi mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jógee. di ñaanal njabootam gi mu fi bàyyi yàlla leen suñu borom dolli xolu muñ te dëgëral leen. Mm-hmm. ndax di leen xamal ni ñàkk nañ waajur bu baax ku mat waajur wallahi al azim li may wax sama xol laa ko jëlee quoi vraiment ko ñaanal yal na ko yàlla xaare àjjana firdaws ko bépp doomu aadama mu tëdd ci suuf yàlla jéggal loolu am na solo Pape Diouf moom comme li rek ci matière bi mu nekkoon moom defe naa ne na si waaram loolu moom mooy doomu aadama non waaw yaa ngi moom kañ mujj déggante maa moom ñu ngi mujjee déggante samedi bale passé hmm. ay la kañ lay tombel est que tombewul ak le vingt ah, as ban jour nga génn vendredi bi samedi bi xaw ma daal kañ la mais. yàggul daal toog nañ fii mag bi ñoo toogoon di waxtaan ak waa daara ji. waaw mu woo ma téléphone ne ma man kat. maa ngi nii bëggoon naa ñu gisee mais damaa xaw a tawat sama sama biir bi mooy métti affaire yooyu noonu ma ne ko Fatick maay voyage yi ndax li doon tourné Europe dafa bari ba day daan dem sax Maroc di fa jàngale professeur la woon da daan joxe ay cours dañ doon yaatal ci lu bëri wallaahi azim mu ne ma nag tournée yi doon def moo waral mu mu mu xaw a demee noonu mu xaw a kaaw ma ne man ma jàpp ni Fatick maa la mais man waxuma dara moo tax man affaire yi bañ ko waxee dafa maa jële kaw yëgul sax lu mel ni corona dal na ko. wallahi azim. yàllaa fi nekk. no yàllaa fi nekk vraiment di koy ñaanal bu baax a baax a baax a baax. yàlla a koy ñaanal. léegi nag mënuñoo wax tam lu mu jeex moom te doonte lamb bi pose nañ ko mais da nga am combat. Mhm. xam naa foofu la ñuy mujj sa diggante ki nga xam ne moo fi dabal mhm. tëkkonte ngeen fu ne tëkkonte ngeen yàlla def nag combat ba aj nañu ko. Mhm. Euh, na benn moment am na benn jamono sax boo ko fàttalee laaj naa la. nga ne moom. ma ne la poulain Balla Gaye la nga ne même bu dee poulain Balla Gaye la mais Balla Gaye di gëmu ko parce du entraîné mhm. wax jooju ba tey dafa mel ni da nga caane wala wala Balla Gaye daf laa gën a gëm gëm gëm ko moom non ñun ñun ñun ñun gaynde yi xamante nañ ah. gis nga Balla gay hmm. bokkul ak moom ndey ak baay boo doonul gaynde defal ak yow neen hmm. booy ñun làmb ñu rek ñu dund ko ñun làmb dafa nekk si ñun koy dund pour wax la ni rek ñun fi ñu doon entraîné demoon nañ ba benn instant dañuy entraîné fii may entraîné fii. Hmm. wallahi al azim ñoo bokk fu ñu entraîné. ñun Balla non non. fii sama adversaire fils de Balla. Ah. bu ñëwaan dañ koy forcer entraînement yàlla xam na loolu ñemewul entraînement combat bee dem ba am coow commencé koo dépassé muy forcer di rey boppam. 30 tours yu mat mënu koo daw ci dini. déedéet waay wallahi al azim. Ah. mënu daw ci dini. gars yi dañ koy forcer la entraînement ñun entraînement bu àndee groupe. dañuy entraîné ba mu jeex ne gars yi mayaat ñu bonus. ngeen dolli. ñu dolli. billaay wallaahi da nga jàpp ne loolu. non munu ko sax Babacar làmb ji dem na ba benn instant man arrêté naa compétir te ku ne xam na ni général mbapat la ko gars yi gën a xamee. waaw arrêté naa compétir bëreetuma woon simple. Hmm. ndax moom jëloon na làmb ji yóbbu ko foo xamante ne yeggu fa. mais hmm. man samay nit. Hmm. ñoo dem ba ne ma carrément sëñ bi. foo nga concentré wu ci làmb ci làmb ji bàyyi man leen kii mënoon naa bàyyi bañ ba mu des une semaine ma dem bëreeg moom ndax xam nañ lu nekk si ñun mais moment boobu moom it mu ngi wër di wax bëgg jaay boppam ci làmb ji bëgg yokk coowam bëgg bëgg bëgg bëgg pour nit ñi bàyyi ko xel pour ñu bàyyi ko xel yàlla xam na loolu mais li ma la bëgg a xamal ah. ki ko mën ak ku koy jéem bokkuñu te yaa ko gën a ma loolu dama doon xaar rek bañ yegg ci ndax moom damay toog sax ne moom ko war a sant coronavirus la déet waay fii da baala bu tëddee ba guddi nay sant coronavirus. déet coronavirus moom na ñibbi. non na koy sant ndax donte na ñibbi. mais na la xamal leen de. <laughs> ak ak li xëy jot a xew nii. Ah. wallaahi azim am na ñoo xamante ne corona arrangé na leen. baar moom ci la bokk. pour yow moom xam na ni sax ci la bokk. Ah, loolu nga jàpp yow fi fi réew mi toll nii nii nii nii nii heure bi waroon na fekk. ma nekk ci leneen Babacar li ma leer gis naa ko keroog mu ànd ak ñëw Grand Théâtre temps yële passé indi fa forme bu doy waar. wàcc fa Balla Gaye moom Balla Gaye àdduna la doonul Balla Gaye fii sa ah, Balla Gaye daa mel ni nag Balla ko en ma man bu ko jëloon sax en amul benn problème ndax déggoo li ma la bu ñuy bëri ci géew bi Balla Gaye du bëri comprendre nga hmm. te Balla Gaye yaakaar naa ni dafa fekk dafa liggéey ba marqué empreinte am te booy bu bëgg ne ci am ngay topp wala moom ngay roy di nga fexee jéem a daj lu muy daj donte mënoo daj li muy daj mais di nga fexee jéem a daj li ñuy daj am na ci ñoo xamante ne laa la wax combat moo leen di booleeg liggéey li ma lay wax nii dafa maa leer nañ man man damaa mel ni bi géejawaay ñuy daj am na ci ñoo xamante ne laa la wax hmm. leen di booleeg liggéey li ma lay wax nii dafa maa leer nañ man man damaa mel ni bi géejawaay laa dëkk hmm. li benn am naa fa samay nit su may mboq yi fa du ma toog semaine yu ma duggul géejawaay kon li may wax man dama dama leer. Gouye Gui daa mel ni sa nit la. wér na kooku yàllaa ñu boole. ak kilifa gi ma fekk fii te li gu gën a yokk suñu nit mooy war ma bi mu jox doomu aadama. moom Gouye Gui moom Gouye Gui ba suñu xamel di am amaana suñu grand frère la ci làmb xëy na toll na foo xam ne tolluñu ko. Mhm. mais moom saa bu la gisee bu la njëkkee gis sax dalay ñëw fekk fi nga toog jox la li nga moom nee naa man. du ay millions ak ay milliards soo ma joxee cër rek moom nga ma. boo ma joxee cër moom nga ma. moom nag loolu lañ séq daf maa jox. loolu ngeen séq ko ko ba mu am na solo. Mhm. di mhm. nit ñi la ko tere. Mhm. mais gars yi tam am na benn taxaw seetlu bu ñu dañ ne ren moom jotoo cee neex li nga jot a compétir. jotee ci am lu la neex. parce que gars yi daa mel say supporters sax ñoo wax loolu dafa mel ni gaa yi dañ laa jógal wala lu mel noonu yow loo loo ci gis dañ laa jógal wala gars yi ren dañ laa euh, kii maanaam dañoo gis yoon ak leen daan jaar di non lépp lépp daal pour man yàlla la ndax man jàpp naa ne yàlla bi doon mayee démb ak bërki démb ba tey moo fi nekk ndax wax mu yegg rek yàlla la neex kon ay affaire la jugal man fi ma daan dem daan am ndam dama ko sax yokk comprendre nga mais nag da ngay ñëw suñu borom ne lii ak lii nii lay demee hmm. ndax ku ne xam ne compétir moom Christ sax mi nga xamante ne dañ ne mooy meilleur joueur wala Messi des ñu ñëw ay match yoo xam ne duñ gis wala ñëw saison yoo xam ne mooy loolu noonu duñ gis. loolu sport la. Hmm. mais yàlla suturaal na ma fi ma daan dem di am fa laay dem tournoi saison bi ubbi na ñëpp bàyyi ma xel ma dem final ñàkk ko demaat demi final ñàkk ko dem quart final ñàkk ko bërewaat jëlaat génnaat dem jëlaat mais tey jii am na foo xam ne boo fa tollee dañuy jàpp ni chaque jour waroo ñàkk da ngaa war di am mais ñun nag ay ñàq nañ xam xam ni dañoo war a ñàq ñàq te réew taxul ñu bàyyi taxul ñu xaadi taxul ñu def dara ndax ay xale yu ndaw lañ tolluguñ fu ñuy amee ba di fa ñàqee làmb mooy suñu métier suñu xëyee bu nit ñi gàddoo seen caméra dem liggéey ñi gàddu seeni i dem dem jóori ñun entrainement la ñuy xëy dem defi di doole di uti doole boole kook yokk suñu xam-xam ci wàllu bëre mhm. ak ci wàllu xeex kon ñun ñu ngi si lu ñu war man bu fekkoon nekkuma ci lu ma war moom bu ma bëree daanu ko dinaa tëdd ba guddi ndax xam ne kan man mii nekkuma ci lu ma war wala def moom mais maa ngi ci lu ma war chaque jour. dafa nekk nañ ko dund lu nice kon tey tamit xam nga bu amee combat tamit waa mooy loolu dañ koy ñaanal suñu borom. dégg naa mu ngi seen secteur bi lu de. waaw waaw ñun moom mooy loolu gars yi fii ñu fiy loolu bëri na ñu fiy làqatu see bëri na. mais di wax rek yàlla na jàmm yàgg. ndax nit moom bu ñëwee fenn sa ñeme faa ñëwaat rek xëy na gis na fa njariñ te suñu fii ñi fiy jariñoo bëri na quoi ñun xataluñ kenn na ñëpp ñëw ku bëgg ut doole. gëj ngeen gisante. waaw xaw nañoo gëj a gisante nag. xëy na nag jot amul ndax ku ci nekk da ngay nekk sa bopp ak say entraînement. moo tax mooy loolu noonu waaw. waaw li may tàggoo mooy di santaat yàlla. Mhm. di julliwaat ci yeneen bi di di nuyuwaat ñëpp di ñaanalaat ñëpp di wax Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg. di wax li nga xamante ne mooy jàngoro bi xaw a tënk nit ñi. Mhm. bu ku nekk tiit da ngay tëdd sax sa guddi di sa kër guddi di jaaxle. ndax ku ci amul xarit am nga raq wala mag wala mboq boo xamante ne yaa ngi koy tiital. Mhm. comprendre nga kon di ñaan yàlla jàmm feebar bi nga xamante ne moo lëmbe réew mi lëmbe àdduna na ko fi suñu borom jëlee. mu juge fekk jàmm di profité ci occasion bi di nuyu As borom document suma doomu ndey moom kenn la ci man di nuyu Pape Sène rakku Cheikh Ablaye moom day jàpp ci suñuy mbir bu baax a baax armée suma doomu yaay yàlla nga suñu borom defal jàmm combat bi mu jëm yàlla may ko ci ndam lu sedd bi bu gën ci moom Talla Diop boole ko di jël dooleem di ko def si ñun Talla Diop yàlla na jàmmam yàgg euh, nu mu tuddati Njaga Càndum moom it suñu waaye la day jàpp ci bagage yi bu baax a baax ak Cheikh jàpp suñu benn grand borom Kaolack Cheikh jàpp doom day bébé Saloum ñu ngi koy sant bu baax di nuyu daa sumaare suma grand yow. xam nga daa kooku mooy suma lépp. tey bu ma demee ba toll fii ba am sañ-sañu di wax. yëgul de waaw amaana daa moo nekk suma ginnaaw. Ah. moom di ma dooleel di ma tere lu bari buggul ma nekk ci dara bu ma doxee sax ba vingt heures vingt na ma woo laaj ma ci lan nga ne. sant naa ko suma mafia bi suma booy yi nga xam ne ñoom lay àndal ñu jàpp démb ba tey te bàyyi ñu maa ngi leen di sant ku ci mel ni Diall ma fayam Daouda. ñoom papa ñoom Ahmed Gueye borom Maroc gars yi nga xamante ne daal mafia bi ñoom Mamoussa ñoom Tafa Soumaré Tafa Soumaré Seri Sona ak ak mafia bi yëpp daal ak sama ami yi nekk si diaspora bi ñoom mënoo leen fàtte ku ci mel ni ñoom laat ndoo yi dañ may jàppale su may làmb ñoom laat ndoo yi ñoom laay fay uldu sama doomu nday uldu borom Espagne dafa ñëw jóge voyage indi xaalis bu bëri may ma boole ko jël ay yëre yu bëri jox ma zungule moom aw ma fayam mention spéciale kooku instant yi dama koo yërëm ndax làmb ji dasee jël ay millions yu bëri jox ma ne ma mbër préparé làmb ji loolu laaj ma def ko yàlla xam na loolu mu dem ba làmb ji yàqu ci moo taxawoon delluwaat Espagne te mu ngi fi woon doon waajal làmb ji làmb ji dafa yàqu rek mu delluwaat kooku tamit aw ma fayam maa ngi koy ñaanal bu baax sama am yi nekk si diaspora bi maam Cheikh Anta sama Baye Fall bi aw ma sa fay maa ngi lay béggee bu baax a baax a baax kullu rek képp kuy béggee général di suma nit di jàpp sumay làmb sant naa la gërëm naa la maam daf may jàppale di ma ñaanal suma bu baax sama am yi nekk si diaspora bi maam Cheikh Anta sama Baye bi aw ma sa fay maa ngi lay béggee bu baax a baax a baax kullu rek képp kuy béggee général di suma nit di jàpp sumay làmb sant naa la gërëm naa la maam Thierno daf may jàppale di ma ñaanal suma xarit la ak képp ku may ñaanal maa ngi lay sant di la gërëm ak ñi nga xamante ne ñoo jàppoon ci combat yëpp liñ naan ku lim da ngay juum Cheikh borom gambi su ma Babacar génneel ma lii. waaw seex borom gambi aw ma fayam seex si barki yeneen bi moom it alal ju bëri la ma jël jox ma ko ci combat bi ne ma général loo namm ñu def ko. boole kook di ñu woo ndax amoo leen problème nangam luñ ne nii balaa ñoo wax wallahi al azim mu génnee moonin bu bëri jox ñu. def si moment bii nii man moom laa gën a yërëm ko suma bopp ndax làmb ji da cee financé ay millions yu bëri. Mm-hmm. billaay wallaay wa taalaay. Mm-hmm. te mooy loolu noonu instant làmb ji demee nii kon seex borom gambi doom day Adama Boro. maa ngi lay sant di la gërëm gis naa sa taxawaay ci man jàppale nga ma taxawu nga ma quoi vraiment sant naa ñëpp képp ku ma jàppale sant naa la di wax ni maanaam ku ma limul rek damaa juum wala xelay fàtte quoi képp ku ma jàppale daal sant naa la gërëm naa la di nuyu waa Malika bi yëpp benn baraag yëmbal Kër ma saar buun waa àll ba ñaax waa caaray ñoom buuba waa defar ko dóoru yi mboto yi ñoom it dañoo préparé woon mobilisation bu doy waar hmm. waa Thierno Ndiaye ñoom it dañoo waaj mbiiru suma lonkoo borom magetu caara yi oma fayam mbaayax borom kolobaan doom day bàyyi siidi sant naa ko non Babacar ñi jàppoon a bari <laughs> man lii moo ëpp solo sax man ci li nga jot a jël yëpp lii moom du ma ko génn billaahi wallaahi wa taala ndax ñii dañoo sonnoon ci combat bi def ci seen moyen def ci seen alal <laughs> bu demee nii te bëreeguma kon